sëñ Muntaxa ñoo ngi lay ziare waaw yaa ngi am jàmm waaw ñun de dañoo gis ci réseaux sociaux yi mu mel ni dafa am yenn ci ay sit yu bind ne maanaam sëriñ bi ginnaaw bu soxna Aida Diallo defee déclaration di jéggalu sëriñ bi daf ko jéggal te maanaam ñu gis ne yéen seen chaîne bi moom moo njëkkoon a dugal déclaration bi te loolu it gisaguñ ngeen wax ci ñu bëggoon laaj ba xam. njëggal googu nu mu demee am na walla amut ak bu fekkee ne am na it ci yenn condition la la demee jërëjëf. waa jërëjëf sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di rafetlu kàddu yi am na solo lool waaw comme ni ñu ko laajee man la Mountakha Ndiaye yore académie mi naan nekk ci kër Serigne Mouhamadul Mountakha jëloon déclaration bi tasaare ko ci àdduna kon. ginnaaw bi nga xamante ne bii Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ngi koy ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ko wér def na déclaration soxna Aïda Diallo ci la def euh, déclaration ci suba gi euh, bi vingt deux heures jotee sëriñ bi nag dégg na déclaration boobu soxna Aïda def ci la ko nag euh, jéggale jéggal gi nga ko jéggal nag dafa wax ne. mi ngi yëgal mboolem taalibe yi ak mboolem jullit yi ak mbokki lislaam yépp na jéggal na ko teg ci ne mi ngi koy digal lépp loo xamante ne bii daal lislaam digal na ko ko mu def ko lépp loo xamante ne bii daal lislaam tere na ko mu bàyyi ko bu dikkee nag ci yoonu murit bi nga xamante ne bii ci la wax ne ci la bokk mi ngi wax ne yoon wi kat dafa am lu ko tënk mooy doxalin bi nga xamante ne bii Sëriñ Tuubaa euh, tegoon na ko bàyyi ko fi loolu la bëgg mu dox ci sàmmoonte ak li nga xamante ne bii daal moom lañ koy digal ca wattandiku li nga xam moom lañ ko ci tere loolu daal la sëriñ bi waxoon ne mi ngi koy wax euh, mbokki taalibe yëpp mi ngi koy wax mbokki jullit yëpp di wax ne daal jéggal na ko loolu daal mooy nekk kàddu yi li tax tamit ñu indi ak leeral mooy dafa bari tamit ñu ñuy woo di ñu ko laaj te ñun tamit ñi nekk fi ca euh, xam ci euh,